ak bi li ko waral mooy ñun ay safoor lañu ci département bi leen dëkk te it euh, mooy li président fédération bi wax léegi suñ papa Omer Seck suñu kàddu dafa tag fu sori bu yàgg yàlla dimbali ñu xaj na daf ñu nar a baaxee ñu jaar ci moom mu tàggante ñu suñuy kàddu ndax safoor amul lu dul dawal ñun métier lañu yor te nit ki métier mi yor ku ko ci dimbali bëgg nga mu àgg fa mu jëm ay njaboot lañu yor auto lañu xam auto lañu yaakar suñ lepp ci la ne kon bu fekke ni ban dawal dare dawal ak leku melni man nga xam ne daanaka dawal na 3300 danaka om musuma am auto transport bo xam ne moomal naa ko sax sama bop waye yalla ak may dimbali ma ngi tedd bon transporteur li ni daan def moy auto bu doon 40 millions ñu jox ni koy buñ ko moom suñu sa fot bi moy daw fay auto bobu kon bu yalla yàlla nga am auto bo xam man mën nga si daw dépasse lola tak am ko ko meuna a ba jox lako ak lu mu la ko mën di joxe day mel ni oto bi may na ko ndax ñun yàgg nañoo daw di fay oto fay nañu cinquante millions fay nañ quarante millions fay nañ trente cinq millions ba tey fay ay bor moo ñu tax a màggat te taxuñu am oto kon bu yàlla boole ku mel ni Omer ku mel ni Macky Sall nekk suñu jiitum réew te vraiment ñoo ngi ko gis ba mu départ ba léegi si dimbali askan wi la ne ñu bëgg rek fi may wax rek mag Macky xam ni sëfur si ñëw ci ginnaawam te moom la ñu yaakaar ci li ñuy dimbali ko ko ñaanal yàlla it am deuxième mandat bu sëddu guy. di ñaan yàlla mu gën a premier tour. caravane bi dañ ko def euh, dafa mel ni dañuy delloo njukkal parce que dañoo am maanaam dañ ñoo dig lu ñu musul dig tëngéej wala ñu wan ñu loo xam ne ñu ko gis tëngéej loolu moo tax tey jii ñu jóg ne daal dañ koy jàppale pour que vraiment mu gagné au premier tour. waaw li ñu digg mooy euh, du dig bi sax moo ñu gën a ñor mais li ñu gën a ñor mooy dañ ñoo defal loo xam ni musu musuñu ko am tëngéej. maanaam comme ni ma ko mën a waxee mooy euh, sëfaru Tëngéej daanaka benn politicien faalewu leen woon boo bëggee wax dëgg ji ngeen baal ma ci waxin bi dafa mel ni faalewuñ leen woon maanaam dañu nekkoon ci suñu ruq rek bu ñu liggéey ba ngoon ñu dem su ñoom wala politicien bu ñu woow it daf ñuy woo pour benn but bien précis bu jeexee rek mu bàyyi ñu dem ba ren nag ñu am benn cas boo xam ni peut-être dafa taxaw lu jëm ci Tëngéej li ñu gën a gën a far dafa nekk mbir moo xam ni maanaam dafa doon dem feneen mu am nag doomu tëngéej bu jóg dem jëli ko indil ñu ko maanaam oto yi dafa am oto yu fi indi woon benn waay ji ñuy wax Mayoro moo ko fi indi woon mais oto yi dafa amoon problème pour dugg fi te Mayoro ci boppam moo ñu wax ni oto yi dafa am pour problème pour dugg fi parce que dañ ko buggoon yóbbu Touba xaw ma Matam mu ne Omer ñëw ni ko daal vraiment oto yi bugguma mu jéggi tëngéej di dem feneen ma yoroo ne moom it oto yi dafa amoon problème pour ñu génne ko parce que dañ dafa am ñoo xam ni nag neexul ba neexul dañu bëggoon di exploiter chauffeur yi loolu ñu bëggoon continuer mooy tey jii damay jël oto jox la ko wala jox ko benn transporteur transporteur bi jox ko chauffeur bi chauffeur bi daw di ko di ko di ko fay moom it comme gis na loolu ci yërmandeem mu ne léegi daal dama bëgg au lieu que ñu koy jaarale feneen ñu jaayale ko ci chauffeur yi directement comme ça jox leen ko ñoom ñoom ñu di di ko fay bon mu doon loo xam ni xëy na mus na am. parce que président Abdoulaye Wade mos na ko wax ci tataay ba ñun ñëpp ñu yaakaar ko topp ci gannaaw mu wàññeeku dem jox ko ay transporteur maanaam ñun ñi ñu nekkaat ay dawalaan comme ni ñu meloon ren nag bi ñu gisee situation bi ñëw moom mu ñëw taxawuñ ci oto bi ne oto bi daal vraiment damaa bëgg jox ko tëngéej te dimbali ci chauffeur yi moom ma tax a jóg aussi maanaam amul intermédiaire dañ koy jël directement jox ko fédération bi nekk ci département bi fédération bi dafa englobé 18 garages garage yooyu nag defar seen i GIE GIE yooyu ci la ñuy maanaam daal comme genre CETUD lañ ko def dañ koy jox fédération bi fédération yi jox ko jox ko garage bon nit ki nag am na foo xam ne bu la fa taxawoo wala mu defal la loo xam ne musul def bu dee gor nga da ko war a defal loo xam ne kenn musu koo def parce que caravane bii ñu def Tëngéej ku dëkk Tëngéej juddoo fi di nga ni ba nga fi juddoo ba tey mosoo ko fi gis te li tax ñu def ko nag bàyyi Omer mii moom mu ñu ko ji